conseil national sur la consommation amal na ndaje ci àjjuma ji ngir ngir amal ay saytu ci njëgu yenn ci ay produits bu ci mel ni diwlin ak sucre. conseil national de la consommation bi nga xam ne am nañ yéene taxawal ko tey jii ngir mën a waxtaanee ay njëg njëg. boo leen gisee nag ñu wootee waxtaan wi dafa fekk xam ngeen ni jamono doxee euh, inflation bi depuis Covid ak li nga xam ne moom mooy euh, xew-xew bi am ci diggante Russie ak Ukraine. tax na ba lu bëri ci njëg yi day yéeg a ko wàcc donc loolu moo tax ñu ne woon nañ daje ni ko loi waxee loi sur les prix et la protection du consommateur loi de 2021 ne nañ dajale conseil de la consommation. muy ñaari produit yoo xam ne nag bokkuñu niñ leen di jaayee ci marché bi bu njëgu benn bi wàññeeku ko yokkute la ñu nemmeeku ci beneen bi. gis nañ ne bu dee diwlin bi euh, prix bi wàññeeku na bu dee suukar bi prix bi yokku na. ndax bu fekkee ne suukar bi dañ koy importer kooku foog mu am njeexital ci prix bi nga xam ne moo nekk sur le marché intérieur. bu ñu sukkandikoo ci directeur bu commerce intérieur jafe-jafe yooyu li ko indi mooy approvisionnement marché bi rawatina ci lu soxal suukar bi. marché international dafa xaw a jaxasoo jaxasoo gu mu jaxasoo tax na ne prix suukar si faaw ñu xoolaat ko mu yéeg pour ñu mun a am suukar mun a am ci dëkk bi. am njëg bu ndax bu ñu deful noonu rek euh, importateur yi ñuy wut ci suukar duñ ci mën a duggati ndax suukar cher na cher boo xam ne bu ñu tënkee njëg yi ci njëg fu ñu doon alors ñoom dañ cee dañuy bàyyi. conseil national de la consommation tax na ba ñu amal yeneen i njëg kilo suukar dina jar téeméer ak fanweeri dërëm bu dee diwlin bi nag litre bi dinañ ko jaay téeméer ak ñaar fukki dërëm.